télévision Futur Média mbokki jërë ngeen jëf dellu nañu amaan mbégte mu yaatu ànd ak ci xibaaru timis yi la ca gën a fës dina bokk ci jàmm ñuy sàkku ca diwaanu Casamance lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukki soldaar yu bokk ci MFDC bokk ci faction càkkaay jël nañu dogalub wéer ngànnaay tey jii dañu ko defee jël dogalub it génn ci àll bi jàmme Casamance mooy leen yitteel ndaje mi doonoon tey ci suba ca dëkk bu ñu naan Mbongon nekkoon ca département ràññee ci réew mi naka noonu it ambassadeur bu Union européenne fii ci réewum euh, Sénégal gaal gu suux ma nga suuxee ca Ndiog Mberes nekk ca commune bu jama am na benn xale bu góor bu toll ci fukkeet ak juróom-ñett bu newoon ca ne ñëwoon ca gaal ga moom ñàkk na ca bakkanam askan yu yëkkati seen kàddu di sàkku ñu dimbali leen ci pont boo xam ne danañ ca mën a jaar ngir jéggi googile dex ba dootuñu soxlaate di jël ay gaali loo ca ba ay loraange di ci am wopp ji ñu naan Crimée Congo ñu koy dégmati ci senegal di jàpp li nga xam ne moo di jur gi rawatina yi ñuy jëfandikoo mu di ndawal gi loolee nag jaaykati yàpp ya ca Russie ca Médina yëkkati seen kàddu di delal xelu askan wi di xamle ne ñu ngi topp li vétérinaire yi waxtaan te it dinañu def seen kéemtalaay kàttan ba ndawal gi ñuy jaar jaay kon jenn wopp du ci am daañu waxtaanee wàllu tàggat jaram moo ñu yóbbu ba ci diwaanu Louga foofee ñu bari ci ñi yëngu ci wàllu làmb ñoo ngi ci jaaxle la tax làmb ji dellu gannaaw ci Louga nee nañu amuñu jumtuwaay mu di infrastructure yu leen di mën a may kon mbër mën faa cosaanoo loole dana tax promoteur yu bari duñ fa bëgg a tëgg làmb seen bëgg-bëgg mooy ñu defaleen ab arène ca diwaanu Njàmbur mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ma faram leen ko lépp ñaari témèr ak juroom fukk ci combattant yu bokku ci MFDC ci faction bi nga xam de di faction bu Euh, càkkaay kon tey jii jël nañu dogalub wéer ngànnaay génn ci àll bi dox ci jàmmi Casamance xew-xew yi tey jii ci suba la woon ca dëkk bi ñu naan mbongoon ma nga ca département bu Bignona euh, ndaje mi doonoon ci teewaay ambassadeur bu Union européenne fii ci Sénégal bu amiral Farba Sarr ak ay kilifa yu euh, fekk baax ci diwaan bi xibaar la bopp des na ko gën a yaatal ak suñu ndaw la ca boobile diwaan mu di Lamine Ba. leneen la ñuy waxtaane mu di gaal gu suux ma nga suuxe fële ca Ndiogu Mberes nekk ci commune bu Jama ak gaalu loocolo gu yaboon ni nit yu doon traversé dex gi am na kenn ku ca ñàkk bakkanam benn xale bu góor la bu toll ci fukkeet ak euh, juróom-ñett askan wi nag yëkkatiti seen kàddu di sàkku ci kilifa yi réew mi ñu defal leen fa pont boo xam ne danañ ca mën di jaar ngir di jéggi dex gi euh, diggante bi toll kon ci ñeent fukki kilomètres ak léegi ñu koy jooy na ci juróom fukkeet Ousseynou Diop Habib Seck reportage ngum beres. askan wi ki nakar lañu daal di yendo seen doom ji dafa doon jéggi dex gi waaye nag dafa mujjé faatu fukki at ak juróom-ñett nag la am bi muy génn àdduna askan wi nee nañu ca yi maam ak léegi nii la ñu dëkkee ngir ñu mën a dem ci beneen bor bi nii la ñuy def saa su ne. gaal gi bu ndee jàll 100 francs dem 100 francs dellu si sunu doom yeeg sunu sët yëpp jeex na si dex gi te bu nu sañoon ñu dimbali nu ba baax. boobu ba léegi ñu ngi seet. démb ba ci treize heures ba tey samedi quatorze heures ñu ngi seet ba yàlla may nañu sutura ba tey gis nañ ko à quatorze heures et quelque gaal de fortune yi la ñuy jël wala ñu jël ay looco benn la preuve ñu ngi nii taxaw ñu ngi ne di ko defar. ci kàddu jooy nañ fu ne ngir lu jëm ci wàllu pont ñu mën leen ko taxawal ci dëkk bu ni mel. fii askan wi ñu ci bare bu ñuy xëy fi la ñuy jaar waaye nee nañu boobu ba léegi dañ leen du moyu yàgg na am ñu fiy dee ñu fiy dee bare nañu. état nanu dimbale ci lii parce que mi ngi financé des ponts de un mètre cent quatre-vingts lii même pas quarante mètres trente mètres ñu ko am te saa yu ñu waxee ñu ne mu ngi ci table ministre tel saa yu ñu waxee ñu ne mi ngi ci table député on am marre de ça. ñoom askan wi nekk ci Ngingu Mberes daan nañuy mer bu futtu nee ñu lii nga xamante ni daan na leen lu leen métti la waaye la ñuy sàkku mooy nguur gi amal leen pont boo xamante ni jafe-jafe bu nu mel doot nu ko gis ci askan wi. ndaxte ci at yi nga xamante ni génn nañ ko juróom-ñeent ci doomu aadama ñàkk nañ ci seen i bakkan dellu si Ndakaaru waxtane walu njàng me mi sagara ngay école supérieure multinationale de télécommunications ñetti semaine Yo xamné fas ñu ko ak gu sëkk mo am ci digënté administration bac Professori yi ak déggoo amatul ngir nak fexé nees di mëna def dal ba wayjuri ndonga yi seeni dom kon mëna dem jangi li motax ñu yëkëti sen cadeau malik mi ngi bokku ci collectif gi jaboté parents d'élèves yu bobilé école ñu déglu ko ak Pafara Ñing ak Ehm, li mu doon mooy eh, suñu doom yi nga xam ni ñetti semaine ngi nii mënuñoo ñëw ci daara ji jàng si ci du loo xam ni du ñàkk lu leen ñàkk fay du loo xam ni eh, du directeur bu ñu fayul du loo xam ni du eh, jàngalekat bu ñu fayul moo tax loolu bu ñu ko waxee dina xaw a jaaxal nit ñi mm, dafa am mbir moo xam ni dafa nekk ci diggante ki nga xam ni moom mooy kilifay bërëb bi mooy directeur bi ak jàngalekat yi ñoom ñoo am ay jafe-jafe. jafe xale yi am nañ ay jafe-jafe mbi ci ci ci jumtukaay yu nu mën a jàng jàngee xale yi moom la ñuy yuuxu léegi euh, bu dee ci seen euh, wàllu laboratoire problème yi am na foofu bu dee ci wàllu euh, seen i service su toilette yeeg yooyu am nañ ci ay jafe-jafe ci bu dee ci wàllu internet bi nga xam ni école bi lu leen lu toll ni école télécommunication e mu ñu bu mel ni école bu daara ju mel nii ñu am jafe-jafe internet boo xam ne bu ñuy jàng dañu day day nekk jafe-jafe ci ñoom loolu dafa nekk loo xam ne vraiment euh, mbir la bu nga xam ni euh, jaaduwut léegi bi loolu yëpp amee ñun waajuru xale yi dajaloo nañu waxtaan dem seeti ci wàllu wu ne léegi nag ñun ñooy victime yi ñu am problème mooy ñun parent d'élèves yi ñu ci am problème ndax suñu doom dematuñu jàngi léegi bi ñu tolloo foofu aussi mbir mi euh, am am euh, benn ampleur bu mu jël lañ ñu def la ñu waroon def mooy ñu nit bàyyi nañ leen fii dem wax ak ministre bi nga xam ni moo yor moo moo moo yor euh, daara ji. ñiy jàngale éducation artistique ak musicale mu di professeurs yi yëkkati nañu seen kàddu di wax ci anam yi ñuy liggéeyee nee nañu dal li ñuy jàngale dafa mel ne dañ koo xeeb ci l'école yi firnde li mooy at mi yëpp 24 heures la ñu ci am nee nañu it euh, recrutement yi dafa des coordonnateur national bu professeur éducation artistique ak musicale yi am na ab euh, mémorandum bopp teg na ko ci table ministère éducation national euh, loole ñi ngi ko xamle ci ndaje mu doon amal ci diwaanu Tëngéej ci ngir doon sargal ak a ràññeeku lool ci wàllu aar ak musique tëngéej la ñuy dem ànd fa ak Abdou Diouf Diagne ak euh, Ahmadou Bamba Samb. discipline yi amuñu ndey amuñu lii mooy gis-gisu kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñiy jàngale wàllu aar ak musique ñoom ñi la nag ñuy gis ne dañoo war a gën a dooleel nag bi nga xam ne moom la ñu jàngale ñu nemmeeku ne sax nag li ñu ko jox ci ay waxtu dafa néew lool la. donc li bëgg ñu defal ñu deux def ko discipline obligatoire. Euh, ministre bi dig nañu ay dig ay euh, ay inspecteur ñaari poste inspecteur en art place ben en musique ñu ko ci gërëm diko vraiment guest. nañu Nous nañu loxo duñ ci occasion bi c'est l'occasion ou jamais. soxla recrutement tamit. recrutement parce que recrutement amul un recrutement massif recrutement amul mënuñu matali Sénégal yépp té tank Sénégal matali wuñ ko duñu discipline discipline obligatoire. problème ministère lañ ministère des beaux arts moñu former mooy NMC bu bees bi ministère de la culture la donc NMC la ñuy en ensuite ñu ñëw éducation nationale moom moo ñuy jëfandikoo ba pare ministère de de la fonction publique moom moo ñuy fay donc day compliqué xam nga. ñëw teewal jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mi directrice bu cabinet bi nag daal di nangu nag ne discipline bi daal dinay am ay jafe-jafe wante nag muy xam ne ni dinañ ci wut ay saafara. bu ngeen defee seen cérémonie ba pare ngeen ñëw ñun ñëpp ñu waxtaan bi xool nan lañ koy defaraatee ndax njëriñ lay doon ci système bi ndax ñëpp xam nañ ne éducation artistique ak musique dafay am lu bare lu muy yokk ci xale bi jàng. bu weesoo nag dooleel discipline boobele ñi nga xam nag ñooy jàngale wàllu aar ak musique nag di xam ne ni daal di nag jël li nga xam ne nag mooy jumtuwaayu xarala yi daal di koy dugal si njàng mi ngir nag gën a mën a yee gune yi. codage moom boo ko mënul doo bokk ci di jëm ci jamono xe ci jamono tay jii boo ko mënul même waa Thiès suñu collègue bu Thiès ñoom tamit dañu bëgg ñu former donc Dakar lañu commencé mais après dañuy continuer dans les régions parce qu'il faut mu bokk ci. kuréel gi nga xamné nak nag mo ëmbu ëmb jàngalekatu éducation artistique yi ak musique nak doon amal nak première édition bu concours national bi nga xamné dañu ko jagleel nak walu art ak walu musique. Pape Sow mooy coordonnateur bu mouvement bi di Sénégal sunu yitte àdduna jëmee ci réew mi ak tolluwaay gi mi ngi sàkku ci way politique yi fu ñu mën di féete ñu delloo si seenum xel xam ne jàmm ak juboo rek moo jig réewum Sénégal rawatina ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi fiy dégmati pétrole ak gaz kenn ku nekk teg ko bët kenn ku nekk ci réew yi ñu wër di wut lu mu ci am Pape Sow ñu teewlu ko ci kàddu yi mu dénk Mamadou Fall. ñu jamono yi Sénégal yëngu na te xëccoo mbiccoo mbaalo bu nekk ci way politique yi waaye ci boobu jamono également ñu war a fàttaliwaat sénégalais yi rawatina ndaw sénégalais yi ni sénégal fii lek at bi ñuy day tabbi ci réew yi nga xam ne produire gaz ak pétrole président Macky Sall ak ñoñam ñu xam ni war ñoo jaawale lañu moom ak lu ñu bokk ak nit ñi war ñu jaawale lañ leen dénk ak bokk ak nit ñi lu ñu turu kenn ne ko wuyu jil ci waxtaan bi wala nangam wala sangam. moo tax ñu sañ a tudd turu maire la capital rawatina de façon symbolique mu nekk le maire de la capitale mu àddun wax ni que moom ànd na si dialogue boobu dañoo bëgg suñu réew jàmm rek am fi. kon ñi nga xam ne ñooy xëccoo ci espace politique bi nañu nangoo toog waxtaan ku sénégalais yi wóolu ñu xam ni kook la sénégalais yi wóolu maa ngi leen ko doon junj ci boppu xabaar yi woppu ji ñu naan Crimée kongo feeñ senegal ñu fi dégg benn ba ñaari cas di wopp joo xam ne day faral di feeñ ci jur gi rawatina euh, ndawal gi ñuy yittewoo. loole nag tax na ñu seeti woon jaaykati ndawal ya nekk ci fi nga xam ne moo di Médina Rue 6 ñi ngi dalal xel yi xamle nañu ne daal lépp lu ñuy def dañ koy dëppale ak ni ko vétérinaire yi bëggee te it lu aju ci ceet gi mu làmbool ci anam ci ni nga xam ne noo nekkoon la ñuy leewatalee euh, dañu koy sàmmoonte ak moom bu baax a baax dalal nañu xelu askan wi ci joojule wopp daal euh, danañ def seen kéemtalaay kàttan ba du yegg ci ndawal gi ñu jëfandikoo reportage ci Médina Rue 6 Aminata Mbare Sow ak Modou Diop. Médina ñu gën ko xamee ci njaayub ndawal ñu fi agsee nag bokk na ci ñu dalal kii di Birahim Jaxate kii nga xam ni boucher la xam loolu lu jëm ci lépp lu jaayub ndawal. yàpp buy ñëw fii suy egg si du ñëw si gis tache de maanaam nag bi buñ ko rayee dañ koy bàyyi ba mu sedd ba deret bi jeex ñu raxas ko ba mu set crocheté ko yéegal ko ci kaw lañ koy feesee suñu paree raakol yi ñëw raxasaat ko même buy egg si suñu taabal yi du am deret. ndaxte ñoom jàpp nañ ñi ndawal gii ñoo jaay ñi amee xam-xam boobu léegi ci mel ni ay vétérinaire ñoo koy liggéey def ci lépp li war balaa ñu koy dugal ci marché yi leen. dañuy am carte professionnelle am certificat médical nit ki booy jaay lekk da nga war a wér da ba pare door a jaay lekk. tampon bi ngay gis nii vétérinaire bi mooy tamponné comme quoi ne nag bi baax na da koy visiter ba pare. su baaxee mu tamponné ko su baaxul nag boobu dañ koy daggati yóbbul ko gaynde yi ànd mais du dugg sur terrain. ñii ci liggéey ci wàllu wér yaram ñu gën a ñaax waaye tamit gën a sensibiliser ngir ba a tiital askan wi te loolee ñu jàpp ne du baax sax ci ñoom si seen jaay. des ba léegi ci wàllu njënd ak njaay waaye ci weneen anam UNACOIS Yeesal fas nañu yéene def seen kéemtalaay kàttan ngir défendre marché mm, bu Kermel ndax euh, akit marché bu port nenañu nous nangu beaucoup di sétane muy Sandaga lolé nak ñuy nous ci réew mi ñu xel bu baax Cissé président bu yessel ñu di taxawoo marché yépp ci digënté maire yi nga administré commerçant yi ak les préfets yi nga xamné tay ñoy joxe autorisation ci vari, yi euh, autorisation précaire ñoo ñëpp dañ leen di waxaale tey que marché bi yeen ñi taxaw fi di wax ñëpp ñu ci bari ak man mi nek naa fi ngor si ba nek gor gi tay marché bi ñu ci bari mo leen mag dafa symboliser dara ci Dakar marché du port ak marché Kermel état Sénégal maa ngi ngi leen di yëgal de ay marché la yo xam ne yu jara baye xel la waruñu ko baye mu disparaître yi ndaxte lu baax lañ ci doon jublu certes mais am na lenteur bu tax ñi ci nekkoon ñëpp ñu ci bari ñàkk nañ seen alal ñi nekkatuñ fi ngir niñ ko tëjee amul préparation buñ defoon ba tax li dal leen ci. loolu nag du dal marché yi nekk fii ñu fi nekk yàgg nañ fi xam nañ lu ñuy def maa ngi wax le président de la république ne ko marché du port marché la boo xam ne bokk na ci marché yi inaa ko waaye sal gën jàppale taxawu ay membre ci rek way bu len xalat ci ñoom ñu tasaaroo lu mën xew nañ ko waxtané ba trouver consensus te baña def preuve de force. Cheikh Cissé doon addu ci euh, micro Pape Fara Gningue caméra lune Diagne ñu waxtaanee walu culture ak waykatu Sénégal bi di Kumba Gawlo sek ginnaaw ñaari at yoo xam ne wayu ko ndax tawat opération bu mu defoon ci baat bi ñu bari sax doon amuk ragal ci ndax dana wayaat yàlla def na moom kumba day delluwaat ci seen bi loolee nag muy mbégte ci ñi nga xam ne ñoom la seqal culture bi rawatina kii di Youssou Ndour moom Youssou Ndour ci euh, message bu mu ko yónnee euh, xamle na ne daal euh, ne ñi ngi la doon séentu te it si nga. sa teewaay ci anam wi ngay woyee ak baat bi la yàlla dénk loole kon namoon nañu ko lool mu tegal ko ci sax ne su ma newoon ndakaaru xew-xew bi nga xewle kenn du ma fa jiitu message la boobu yu sundur moo ko yónnee Kumba Gawlo jaarale ko ci way xarala yu yees yi wàllu tàggat yaram la ñuy waxtaanee ak Coupe d'Afrique bi ñu jagleel xale yi amagul fukkiyaat ak juróom-ñaar muy am ca Algérie Sénégal war cee football ak Burkina Faso ci demi-finale yi loolee suba bu quatre jotee lay doon mu di jongante boo xamante ne ji kon jongante la bu am solo bu ñu sukkandikoo ci ki leen di tàggat euh, xamle na ne de lu aju ci équipe am dana def kéem talaay kàttanam ba foofee mu toll daal mu weesu ko ab jano la ci doon amal ak taskatu xabaar yi ni ñu ko baaxoo ci ndoxteel ci wattaayu match bu nekk Cheikh Sadibou Diarra ak euh, image yi fédération Sénégal bu football ci leeral. équipe nationale U17 bu Sénégal dese na ñaari jongante ngir mën jël kaan bu catégorie bi bi ci njëkk seen digganteeg Burkina Faso ci demi-finale yi. mu di derbi bu Afrique soowu jant bu nar a tàng jër wante Sénégal bi gëm liggéeyam amu ci benn tiitaange. et Burkina d'excellents joueurs Burkina Faso am na joueur yu baax ku ci mel ni euh, Camara waaye ñun it dañoo am suñu façon gu jouer am na nu ñu euh, xamee football bi nga xam ni moom la ñuy def tax na ba ñun xam nañ bu baax équipe bi nga xam ne nii mooy Burkina Faso bi na muy attaquer ak na muy défendre Burkina Faso jot naa jël lii di euh, kan bi waaye dem ci ñaari final ci atum 1999 ak ci 2001 kon mu nekk ak adversaire goo xam ne nii respecté nañ ko lool. waaye ñun bëgguñ yem fii dañoo bëgg a continuer li nga xam ni mooy aventure bi loole nag day jaar rek ci ñu am ndam ci kaw Burkina Faso équipe bi gën a concentré wu gën a am taxawaay ci jongante bi kookee mooy jàll. Euh, dévoué dans ce match pourra passer. ca Anaba ñaareelu yoon bi ci juróomi jonganteem yi ci U17 bi gaynde yu ndaw yi bëgg wéyal seen progression. ci niveau bi. en train de progresser sur l'intensité. ñu ngi yokk li ñu mën ci euh, jeu bi di gën a xam ni mu tëddee di wéy liggéey bi waajal it ndaw ñi waruñu rek di làqu ci euh, lu jëm ci terrain bi ni mu mel waaye dañoo war a joxe lépp lu ñu am ngir gën a am taxawaay mu doon ab demi-finale historique goo xam ni kon bëgg nañ ko amal kon waruñu yem fii rek war nañu wane football bu taar goo xam ne nii dinañu ko amal équipe boo xam ne nii moo gën a sawar gën a dëggu ci liggéey bi muy amal. te tax mu yokk palmarèsam kookee euh, mooy gën a am chance jàll ci demi-finale yi. Euh, mu yegg ci demi-finale CAN U17 bu njëkkam senegal bëggul yam foofu jàllam ci finale bi war a jaar ci mu am ndam ci kanamu Burkina Faso dibéer bi bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon. ginnaaw football bi dañuy waxtaanee wàllu làmb dem ba luga ñu yëngu ci wàllu làmb ji foofe gis nañu ne daal ñàkki jumtuwaay lu ci mel ne arène ak yu ni mel bokk na ci li delloo làmb ginnaaw foofe ci Louga bu ñu sañoon ñu tabaxal leenub arène ngir promoteur it man di fa tëgg ay làmb bu ko defee mbër yi fekk baax Louga man di wane seen bopp reportage Cheikh na Fall ci ndaje ndaje ñu ko doon sargale ginnaaw victoire am ci kaw aatu ci arène national mbër mii di Bébé Balla daal di nay yëkkati ay kàddu di sàkku ci autorité yi ñu jàppale làmb ji fii ci diwaanu Louga nga xamee ni dafay xaw a sooxe. loolu lépp boo ko gisee ñàkk jàppale la rek ak ñàkk yi ñu tëgg waaw te ñu ngi si lancé képp koo xam si ne yaa ngi soxla làmb rek ñu ngi lay lancé loolu nga ñu jàppale mbër Louga yi ñu yóbbu ñu Dakar ngir yàlla ñu bëre foofu su ma seen ñu jàppale senes yëpp. waaw kenn ku ne espoir bi nga bëgg ñu jàppale la si ba nga mën cee dem. bari Louga yi bokk na ci seen bëgg-bëgg ab arène fii ci diwaanu Louga bu nga xamee ne rek dinañ fa mën di tëgg ay làmb yu mag. ins bi boo gisee làmb doxul Louga ñàkk fu ñu bëree moo tax loolu ndax buñ fi tëggee combat ba la ñu ko tëggaat dana yàgg te loolu ñàkk fu ñu ko bëree moo tax ñu def loolu suñ sañoon nag dañu tëgg wutal arène boo xam si ne pour lamb kese la. président conseil départemental bu luga teewe woon ndaje mi di dëggal ni Louga war naa mën a am ab arène waaye en dina leen yombalal stade Albouri bu Louga ngir promoteur yi di fa mën a amal ay làmb daanu fexe ba am arène nationale comme ni ngeen ko waxee waaye ba tey man pare naa lamb ji ci stade Albouri ci la ñu waaw si xam nga ñu ngi koy jox football bi. ñu ngi koy jox artistes làmb ji buñ ko soxlaat incha allah ci kattanu yàlla maa ngi ñaan Bébé Balla am combat bu mag ñu ubbil ko Esat Albouri Ndiaye. ndaje mi amee woon ci teewaayu président conseil départemental maire commune bu Mbéjéen ak itam mbooleem supporters yi nga xamee ni fu nekk lañu ñu bàyyi ko woon ngir delloo njukkal mbër mi di Bébé Balla fekk baax ci dëkk bi di Kër bale loo Thierno Fall jërëjëf mbokk yéen a jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média fii la ñu yem ak ci xibaaru timis yi vingt ngeen ànd ak euh, Cheikh Tidiane Diaw ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba subal ak